Baraba. Merci beaucoup. Merci d'applaudir El Malik Daï. Les applaudissements, s'il vous plaît. El Malik ñu bàyyi Assalamu alaikum, mi. Bonsoir à toutes et à tous. Je me sens honoré d'être ici parmi vous. Je tiens d'abord à féliciter la coordination de Pasteur France qui a réussi à organiser cette belle soirée qui est symbole pratiquement du travail qu'ils sont en train d'abattre depuis des années, je peux dire même depuis 2016. Aujourd'hui, nous nous rendons compte définitivement que la diaspora est 100% derrière PASTEF, la diaspora est à 100% derrière Yévi Askanwi. Alors, nous nous préparons à des enjeux capitaux, à savoir les élections législatives du 31 juillet 2022, mais surtout la présidentielle de 2024. Nous sommes en train de suivre à partir d'ici ce qui est en train de se perpétrer au niveau du Sénégal, chez nous, avec quelqu'un qui veut toujours aller au combat mais sans adversaire. Alors, ce que nous sommes en train de vous dire, c'est que nous devons nous préparer au combat. Ce qui est important, encore une fois, c'est de montrer à ce régime que c'est fini pour eux, que c'est fini pour le président Macky Sall. Quel que soit ce qu'ils vont concocter comme plan, nous allons réussir à mettre la main sur l'Assemblée nationale, mais surtout, nous allons réussir à lui barrer la route pour une troisième candidature. Après, encore une fois, les deux excellents discours de nos grands orateurs, le coordonnateur Alun Sall, que je félicite de passage, et mon frère Bassirou Diomaye Faye damay tënk quelques kàddu rek ci wolof di wax ne rafetlu nañ jotaay bi parce que yamul dong ci Pastef France ndax gis nañ fi ay kanam ay xar kanam yu bëree bëri yu ñu xàmmee yoo xam ne ñu ngi jugee ci réew yu nekk mu jaral leen déplacement loolu dafay wane ne diaspora bi dañu suudewu loolu dafay wane ne diaspora bi xam nañu li leen di xaar mais loolu dafay wane ne diaspora bi réerewul benn yoon lii nga xam ne mooy objectif principal am mooy soppi xarkanamu Sénégal ba ñoom ñëpp ñu mën a dellu seen réew ndax am nañ yaakaar ne loolu mooy seen bébét ñoom ñëpp ah ñu leen di jaajëfal encore une fois parce que niñ koy faral di waxee fépp foo xamante ne nii à savoir l'instance suprême nga xam ne copil bi ak coordination yi soxla nañu fa diaspora bi dañu teew ci anam yépp moo xam ci wàllu xam-xam moo xam ci wàllu engagement ak massification bi ñu nekk di ko def fii ak ca biir réew ma waaye moo xam aussi ci wàllum koom loolu nag dafay wara ne diaspora bi dafa bokk ci force yi nga xamante ne nii ci la Pastef di compté ak yeewi askan wi ngir mën a mën combat bi nga xamante ne ni du leneen lu dul service suñu réew service ñu réew ci ay loxo yoo xamante ne nii depuis ay at ñu ngi di yàq waaye lañ ca bëgg a teg mooy dañu bëgg a saxal seen bopp fi ila abada ngir wéy di ñu noot ngir wéy di yàq suñu réew loolu nag bu ñu gisee tey lu mel nii ngeen réussir ko à l'approche des législatives de deux mille vingt deux dañuy am yaakaar dañuy am yaakaar bu mag a mag a mag que ni coppite ak coppeeku bi tax ñuy liggéey ay ati ati at daanaka mu ci buntu sotti looloo tax nag lépp loo xamante ne nii mën ngeen ko ngir gën a saafonte ngir gën a liggéey ngir gën a uniru maanaam gën a booloo te xam ne mbooloo mooy doole bu leen ci lésiner parce que encore une fois deux mille vingt quatre c'est maintenant mais législative deux mille vingt deux moom mooy mën nañu wax ne primaire deux mille vingt quatre donc maa leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla ah, yu ni tamit ñu réussir ko ca Belgique ak ci yeneen euh, pays yoo xam ne fas yéene nañ fa dem di encore une fois wax ne am nañ mbégte mu mag a mag a mag teew fii ak yéen jërë ngeen jëf. merci beaucoup El Malick kontaan nañ bu baax a baax ci sa teewaay kontaan nañ tamit euh, ci discours bi.